yonent bi sallallahu alayhi wasallam xamal nañu suñu borom dana yëkkati ay musiba yu mag jëmee ko ci cim réew benn ngir nameelam wala ngir seeni tooñ benn xale rek bu daw alquran ci daara di jàng jàng baa si ni suñu borom teggi musiba boobu yóbbu ko feneen ci yeneen réew kon Sénégal war naa xam dara ci loolu Sénégal am na ñu daara yoo xam ne ñoom rek a ko am jàng nañu alquran yoo xam ne ñoom rek a koy jànge ba lislaam duggee fii ba léegi fonk nañu alxuraan fonk boo xam ne dongay daara yi ni ñuy wane gannaaw bind kaamil te duñ ci xool dara te du ca mejj boo demee yàgg naa ci réewu arab yi wër naa ku nekk waaye gisuma ko fi ñu ko mel ilmu rasmi am na ñoo xam ne dañ koo fànn muy seenu fànn moo taxit l'islam Sénégal musiba yu bari daan koy dégg ci yeneen réew waaye ñëwul Sénégal barke alxuraan ni ñuy def alxuraan ak ñu fonke gaa yi yàlla yi ci nekk tax na suñu borom beral leen loxo boo xam ne beralu ko ñeneen waaw waaw leer na waaye bis buñ ko bàyyee gis ko bis buñ bàyyee loolu la suñu borom defal ba mu beral loxo bis ko bàyyee mu yemale noonu ñooñu képp